yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadim irham jamii al waraa yaa haadiyal radaa yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadim irham jamii al waraa waaw ba tey mbokk yi comme ni leen ko waxee woon rek fas yéene ànd ak yéen ak ay jotaay xasida fas yéene ànd ak yéen ak ay jotaay conférence incha allah rabbul alamin ñu fas yéene àndaat ak tamit ci jotaay bu am solo ñu fas yéene koo àndal ki naan Mor Samb Zikrullah du ma leen ko présenté damay bàyyi ngeen déglul ko seen bopp la ilaha illallah musawa la ilaha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 la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Mustafa la ilaha illallah la ilaha illallah Mustafa la ilaha illallah la ilaha illallah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 lum guddi guddi kër maam seera faal la ni la ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah la la ilaha illallah la la ilaha illallah Mustafa la ilaha illallah la الله مصطفى لا إله إلا الله لا إله إلا الله مصطفى لا إله إلا الله لا إله إلا الله كوي باي فال دو دم سوارك kuy baay faal doo dem sawara kuy baay faal doo dem sawara la ilaha illallah Mustafa la ilaha illallah la ilaha illallah Mustafa la ilaha illallah sëtu Mbàkke bu soobee ñam na baar ba masin ba jaw na soobu leen dem gaar ba sëtu bu soobee ñam na gaar ba masin ba jaw na soobu leen dem gaar ba jóg leen taxaw ñuy sant Sëriñ Fallilu guddeeg ba ñuy sant sëriñ Fallilu lool leem nag xewal yaa ngay baawaan dootu ñu abadan ku sopp sëriñ Fallilu xewal war a bay ti wilaayati yaa yor fonn mang ba mer sëriñ nga yaa jiite mboolem ku lukku naan waliw nga gaagaa ngi ni teer kuy bay tadda yaa xale ku dugg gaaluk sëriñ Fallilu sëriñ Fallu àggale laa gaal gaa ngi ni kuy nag bay tat yaa xale ku dugg ci gaalug Serigne Fallilou Serigne Fallou àggale la ana Muhammadul Muxtaaru maa la ko way yow Seexuna Fallu yaa moom yëf yi may ma ci la ana Muxtaaru maa la ko way mhm. yow seexu naa allu yaa moom yëf yi may ma ci laak euh, sëñ Mor da dugg fu am solo muy xaside goo xamante ni euh, Cheikh Mouhamadou Moukhtar sekk moom moo ko wayoon Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacke hmm. euh, Cheikh Mouhamadou Moukhtar Seck ku ko xam xam ko ci way ko ko xam xam ko ci jaamu yàlla ku ko xam xam ko ci bindum xasida yàlla dogal mu mu mu cosaanoo fii ci kër gi di nekk koo xamante ni tey ci ñi nga xam ni ñoo doon yeesalaan bindum Serigne Touba ca njaareem ci la bokkoon mu bind ay way yu baree bari nag yàlla dogal way bii bokk ci ñi nga xamante ni moom moo yu mu taalif mu bokk ci mooy woy bi nga xam ne moom la woy Cheikh Mouhamadou Fadal radiallahu taala anhu bi mu ko taalifee ba noppi am ay mag ñëw ni ko waaw Cheikh Mouhamadou Moukhtar xasida gii nga woy ni mu neexee ndax doo ko yóbbu ci sëñ Fallou mun leen déedéet gannaaw yàlla képp moo ko taxoon a jóg mun leen kat doomu aadama lépp lu mu wax fii ci ci jëf lépp lu mu wax wala mu jëf ko ëllëg yowmal xiyaam dina toogaat waxaat ko foofu wala mu mu wanewaat ko foofu ci kanamu suñ borom subhanahu wa taala kon way wi bu ma àggee ci kanam sëriñ Fall ëllëg yamul xiyaam sëñ faal dina ko dégg kon kooku yàlla dong moo ko taxoon a jóg waaye nag way wi siiw na ba ñëpp dégg ko ba ñëpp xam ko ñu bari nag xamuñu kan moo ko bind waaye ki ko bind mooy Mouhamadul Muxtaar sekk moo tax man ana Mouhamadou al Muxtaaru maa la ko way sëñ bi li ma bëgg mooy nga indiwaatal ma xasida googu may ma ci laak lawlaa ka seex fallu xeewal yaa ngay baawaan dudu jee abadan ku sopp sëriñ fallu xeewal waral dadu laa u xal bu kaaw loolu moo ma jooyloo ana muhammadul muxtaaru ay dem naa u xal bu kaaw loolu moo ma jooyloo ana muhammadul muxtaaru ñibbi naa adduna rus naa mbaara mërës naa te dëgg moo ana muhammadul muxtaaru dem naa sikkim bu lool say te lool rusal ña xool rus yàlla jot naa ngay xëy di daago say sët di daago lii doy na laago rus yàlla ñu ñaaw lëndëm lool te xat jëf yaay seede borom bu saa taxawee ana muhammadul muxtaaru yàlla boonu sore ku fatiya fay jëkka teew bu ni julee nga di fa ñu dem nga ànd ak ñoom di teew ñu dem nga des sontulem ana muxtaaru jàngal na waa këram ba kenn du jëng mu xëy nu ñaanal defal nu mbooloo màggal gi moonu dara le ñu lay ganaar ak i mu xëy nu ñaanal defal nu mbooloo jërëjëf cheikh bi xasida ga cheikh mouhamadou muxtaar sekk ba tey ba mu koy way xaala cheikh Mouhamadou Mokhtar Seck li madixi cheikhihi wa xalili Mouhamadou Fadal Seck Mouhamadou Fadal Mbacke bi ismihi wa kunyatihi dafa jël tur wi Mouhamadou Fadal daa ciy tëgg way tàmbali ca miim nga ni Mouhamadou Fallou mooy falfale lu mu ci wax. Mouhamadou mooy falfale tey ku ko neex mu fay la Mouhamadou Fallou mooy falfale tey ku ko mu fal la ana muhammadul muxtaaru maa la ko way yow seexu naa falu yaa moom ya fi may ma ci laa yow seexu naa falu yaa moom ya fi may ma ci laa law laa ka seex fallilo law laa ka seex fallilo law laa ka seex fallilo xewal yaa jeex abadan kusopu Seex Fallu kusopu Seex Fallu kusopu Seex Fallu xeewal war la lor dëddu la bayti wilayati mhm. yaa yor fondement ba bu wér sëriñ nga yaa jiite mboolem kullu ku naan waliw nga gaal gaa ngi nii teer kuy nekk bay de yaa xale yeg ku dugg ci gaaluk sëriñ Fallilo sëriñ Fallilo àggale laag jërëjëf waaw noonu ngeen ko gisee rek noonu la ko toppee ba xaside gi jeex mhm. jël xaadam dell gi miim nga la njëkk a jël ni muhammadul fallu mooy fal di fol di teyit ku ko neex mu fal la ngay fale kii mooy saahibul kumala xaagi mu ni xawal fadailu maa lam yaxwihi ahadun ku dem fa moom xam ni kii mooy saahibul kumala miim nga mu ni moom raw na mbooleem ñi fi yaaram ci wàllu gune soodaan wa bii daan foore naa la laaj nañu ne baneen miim nga mu ni ko maamam sharif la muy sharifun bun sharifun sharifun tuuma jubluwu la daal gi mu ni ko du xotti saatir du tas yaakaar du ko ko laaj ko laaj mu may la nga géejal fàllu xal yu la jële alif gi ne ko ana muhammadul muxtaaru fallu yaa moom ya fi may ma ci laa lawlaaka seex fallu laam nga la jël ni lawlaaka seex fallu lawlaaka seex fallu lawlaaka seex fallu lawlaaka seex fallu xéewal yaa ngay baawaan dootu jeex abadan ku sopp Seex Fallu ku sopp Seex Fallu xanaa ñun ku sopp Sëriñ Fallu xéewal war la lor de du laa bayti wilaayate yaa yor fannu mang ba bu wér sërif jiite mbooleem ku ku naan waliw nga rëbbay unaa rëbbay unaa kalbala di ku sant sekk dib yaaram Seex mu amadul muxtaaru dafa liggéeyal fa luux rabay unaa rabay unaa kal baladi ku sant sekk di biyaaram seex ma amadul muxtaaru dafa liggéeyal sëriñ fa luux sëriñ fa liloo yaa xew tee nga alaaji fal ba ñam ku ko maa la bëgg nga jasaaka yaa xellux ibrahima mawlaaka xayral jasa wal munaa daaray kan laka falam bi annaka hindi surilan abadan wasaka ribuka fi dunya wa ukhraka fadum ala sidqi wal ikhlasi mutahidan fi sirri wal jaari kaytan wa masayaka uqal bukaawo loolu moo ma jooyloo demuk Cheikh Abdou Seck wuy moo ma jooyloo uqal bukaawo waaw a moo ma jooyloo demuk Serigne Abdou Seck wuy moo ma jooyloo weddi naa mbonam go war na Mbàkke wala la jaay askano fa kokki bis ba Seex Abdou Seck génnee lugaloo fekk baayam bu mag ba bu lu fi ne danga ko war adduna war na baadoola war na ñoo xam ni ñoo na ëpp kattan adduna ku leew toog moom kuru sëriñ Tuuba da ngay narmeelu adduna ku leew taag maam kuru sëriñ Faliloo da ngay narmeelu adduna jeena ba ne jeena dudu ko jot na ngir sëriñ Bamba dem na adduna rus na mbaaram rus te dëgg moor ngir Bamba dem na sikkim bu rëy lool sey te sew lool rusal ña lay xool rus yàlla jot na ngay xëy di say sët di daagoo lii doy na laago rusel jot na wuy ba mil ñu ñaaw lëndëm lool texat wuy ba mil ñu ñaaw lool texat jëf yaay seede borom boo gisee wax loolu dégg naa kii nga xam ni mooy sunu seen maam yéen mhm. daana sëñ Baara Mbàkke daana sol mbubam ñëw bu fii simmi ko fi mhm. bu sëñ Baara simmee mbubbam moom mu ñëw simmi mbubbam wékk sëñ Baara sol mbubbum maam ab Abdou Seck maam Abdou Seck sul sol mbubbum sëñ Baara loolu dégg naa ko ci mag ñi ñu wax ko daa am lu ca sëñ Baara teg ah. ne ko ndax xam nga lii lu ma ci jublu ah. mu ne ko déedéet Mbàkke mu ne ko damaa bëgg ngay man may yow ngay yow may man loolu la ci jublu waaye nag ba tey Euh, Cheikh Mouhamadou Moukhtar ba muy tëj way wa da koo tëj ñaari bayit yu am solo mu jël kaaf ga ci mbàkke ga ni ko gaal gaa ngi nii teer ku nekk bay tàdd yaa xale yeeg ku dugg ci gaalu sëriñ bi Cheikh Fallou àggale la tëjal ñu ñu dem incha allah ku dugg ci gaalug sëriñ Falliloo ah sëriñ Falliloo àggale la tàllal leen loxo yee Cheikh Abdou Seck ñaan mu nangook aaraale noo aaraale noo ci kunu laar de ci koog sa yërmande ibil sa baatin defal mu jàlle noo aaraale noo aaraale noo tey koonu laal réccu ko seel ma de yàlla ñëpp am jàmm amiin yàlla ñëpp am jàmm ñoo ngi ñaanal nag sunu wajur yi nekk ci biir kër gi muy suñu maam sunu baay Mbay Seck di ko bëgg Serigne Touba di jooy ci Serigne Touba jeex tàkk ci Serigne Touba ba ci njabootam gii tamit ñu jeex ci Serigne Touba mhm. ñoo ngi koy siyaare bu baax di ko jox wàcc waaye man nag maa koy wax ni ko man maa la bëggal sama bopp loolu moom yàllaa ko def dama ko bëggal sama bopp mhm. li léeg ngeen dégg son yi ngeen di dégg muy daw ma koy bàyyi faal doo dem sawara nit ñi di ko jël di ko di ko di ko di ci def ay vidéo yëpp man mii maa koy jàng mortala sàmm sikru la fii laa dëkk nag ko fii laa fekk baax maa ngi santaat nag bu baax kër gii nag ma ñëw ah, daanaka fi laa bokk daanaka fi laa bokk kon nag wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñii yor caméra bi yal na yàlla def ngeen doon ay télé yu mag a mag a mag ba mu wër àddina wër na sax àddina ndax nit ñi sit di ñu ngi ko seetaan bu baax a baax yàlla na leen yàlla dooleel bu baax yéen ñi nga xam ni yéen a yor lii tamit set lool ku ko déglu xolam di féex te yéen ñi yor liggéey bi di ngeen di xool nu mu gën a baax ngeen ko def kon yàlla na yàlla baaxal seen mbir wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu kon mbokki ni leen ko waxee woon rek incha allah nii la ñu fas yéene ànd ak yéen tey dundale ko bis bi muy xasida ak i waxtaan ak i bernde incha allah rabbul alamin ndax xasida yi mooy lépp arxuraan mooy lépp noonu rek lañ ko fas yéene dundale muy xasida nga xam ne Sëriñ Tuubaa mi ngi naan isa katabtu tarsansullahi wa sabahat malaikul ilahi ak arxuraan ji nga xamante ni Sëriñ Tuubaa mi ngi naan maasikan bil kitaabi maska darir bi yadi xaaidil kon ñu xaaraat yeneen i plateau incha allah rabbul alamin wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ya malikal mulki ya man jalla al qadir irham jami al wara ya hadi al rada ya malikal mulki ya man jalla an qadir ارحم جميع الورى